di Kaffrine 2 dafa lab ci ndoxu taw mi te fii biñ fi agsee li nga xamante ne moo di ndoxu taw bi mooy buur mooy bu mi mu nekk situation boo xamante ne métti na trop ñu fi dëkk mu doon souffrance boo xamante ne ay at a ngi nii ñu ngi koy dund boo xoolee waa ji nga xamante ne ay jooy rek moo ko desee moom daal mu ngi expliquer jafe-jafe yu ñuy dund gis nga su yàlla ji dawee toilette sax duñ ko mën a dem mais ñun ci ban réew lañ nekk ñuy dund loolu ay année depuis jamonoy parti socialiste ba léegi ñun yàlla ji su tawee heure bu tawee duñ dem ay toilettes mais nañ wax te dëgg ñu bokk ci réew doo teka ay xar lañ mais ci réew mi lañ bokk mais suñu réew dinañ koo expliquer ñun li ñu dund même su fekkee ne am solution mu dimbali. mu doon ay jafe-jafe yoo xamante ne kii di Abdoulaye Sow mu ngi koy bàyyi xel bu baax a baax moom daal mu ngi wax ne dina def kéemtalaay kàttanam pour ñu régler situation bi ni mel. ndar xewul sotti mënu ma ñëw rek benn at ne damay régler yëpp. lii dama ñëw pour que ñu xoolandoo solution am na lu nga xam ne léegi dar dar dar dar lu nga xam ne war nañu ko mën a régler ñu régler ko tey li nga xam ne mënuñu koo régler tey maa ngi war ci war ci wax ministre Mbaye Thiam war ci wax leen ko ñu utandoo sa solution bi te boo xoolee fii si quartier bi nga xamante ne moo di Kaffrine 2 li nga xamante ne moo di béy yi ñoom sax ñu ngi dox ndoxu taw mi mu nekk image yu reetaanlu waaye teewul jafe-jafe yooyu ñi nga xamante ne ñoo di habitants yi ñoom daal ñu ngi am yaakaar ñu saafara li ni mel te am nañu qualité ak yaakaar ci moom lii mu jàng gisal ko boppam dala saafara dala ko saafara man wóolu naa ko. Abdoulaye Sow mi nga xamante ne daa ñëwoon partagé li nga xamante ne moo di jafe-jafe askan wi moom daal mu ngi joxe ay garantie nekk fii ak ñaari fan bu tawaatulee ndox bi dañ ko dindi. Euh, le plus urgent tey mooy génne kër yi ci biir ndox mi te sapeur pompier ak service ONAS ne leen bu ñu leen joxee mooy yu ci war accompagner leen fi 48 heures te bu que aussi asamaan ba tey mu maire bu bu Kaffrine moom daal mu ngi mën a menacé di wax ne entreprise yi nga xamante ne dañu gañ ay marché pour xeex li nga xamante ne moo di mbënn bi war nañoo respecter seen i ay engagement lu ko moy rek daañu leen yóbbu fi nga xamante ne foofu la mbaxane doonee benn.